salaamaaleykum yéen ñi nga xam ni yeneen ñuy seetaan ñi ngi amaat mbégte tey ñi teew fii di leen benn émission bi nga xam ni bon émission la bi nga xam ne yéen a te concept bu bees bu tudd penc mi di émission bi nga xam ne ne rek war a toog tey nag ñu am suñu premier invité ki nga xam ne moo di euh, Moussa Seck ñi gën nga si euh, Milk Zo donc balaa ñu def dara dañ koy bàyyi ak mu nuyoog nga xam ne ñoo koy seetaan grand Milk maa ngi lay siyaar ah Cheikh euh, yal na borom bi nangu ba pare boole ñu bépp yool ñu ngi leen nuyu n'est-ce pas di nuyu équipe technique bi ñi nga xam ñoo à la réalisation nest pas de cette émission tey ñu am mbégte nga doon suñu premier invité ci émission penc mi alors donc balaa ñuy def dara dañ lay parce que gars yi bu ñu xam kan mooy Milk waaye Milk euh, waaw Milk c'est le nom d'acteur comme ni nga ko hein, Moussa Seck Hein? Milk c'est le nom d'acteur si c'est un café avec voilà donc c'est quoi quoi gars gars yi tuddee nañ ma milk zoo quoi. Eh, mënutoo si dara quoi <laughs> léegi Moussa bi moom daanaka. <laughs> ndax saay na li ma koy dégg bëreetul quoi. non lay donc euh, buñ la gisee dañ lay dañ la gis ci ci en fait série moom la ñëpp xamee. Ah. donc est-ce que mënoon xam lan moo la dugal ci série. waaw série hein ay question la yoo xam souvent dama koy jot quoi mais comme ni may tontoo rek hein mm-hmm. série man mosuma xalaat sama bopp ci série télévisée hein musuma xalaat sama bopp dina théâtre itam quoi <laughs> voilà ñaar yëpp xalaatuma ko donc voilà noonu la histoire bi demee xam nga je me suis retrouvé xam ga dans cette série grace mhm. grâce à Boubacar aussi mhm. donc c'est ça quoi il a il la il a moom moo def donc nekkoon li nga xam ne da ci nekkoon lu yàgg wala amour la non non non bon bëggoon naa ko mais ci kaw seetaan ko quoi comme ni ma daan seetaane ñu mel ni ñoom ma ko jegee xam nga Baye ak ñeneen ak ñeneen xam nga bëgg quoi comme tout bon sénégalais quoi. si si mais voilà. ce premier sa première présence ñu gis nga dugg ci euh, un café avec. Mm-hmm. donc euh, mon naa ni képp ku la xam rek ci loolu la la en fait muy un mm-hmm. café avec. Mm-hmm. donc ce euh, présence c'est un café avec. waaw bon ben, ben un café avec comme bon ni ma ni ma ko gisee daal ça a été apprécié quoi gars yi bëgg nañ ko parce que man maa du di génn di gis sénégalais yi xam nga mooy ñuy wax ak man donc c'est dire que ils ont beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup apprécié hein voilà légui nak néna la rek casting bi mhm. Boubacar dafa melne dafa def casting si man ñu jël ma donc bon liñ ma sant man moom laa ñëwaan hein, tout naturellement liñ ma sant man le producteur le réalisateur lim ma wax defal mhm. lool lay def quoi parce que c'est un casting man la ñu indi mooy représenter Milkzo xam nga. mais gars yi gis ñu la ci benn série boo mos a tourné du genre ñu mun la woo pour nga pour nga dóor. parce que man li ma jaaxal mooy gars yi fan lan la gisee fan la ñu loqatee milk. ba indi ñu milk milk bu ñàng bi milk. <laughs> waaw mais mais Cheikh. Uh-huh. Cheikh xam nga sénégalais yi dafa bëri talent loolu dëgg la. <laughs> Cheikh xam nga boo yoroon sa caméra. tey jii uh-huh. nii nga dem ci mbedd mi rek. Uh-huh. léegi léegi xoolal direct ngay am. ay ay séquences yu doy war ngay am xolal live in direct c'est vrai mom la la wax motax man buma ma exemple bi si man jàngu ma ko defu xaw ma ko xam nga ma la bon tout d'un coup je me retrouve dans le monde du cinéma mm-hmm. ma xamni itam sama yoon la quoi tu vois du ma ma assumer mm-hmm. n'est-ce pas Wa. et puis ça a valu ce que ça m'a valu parce que tamit indi nga ci ben affaire bu am solo manam tay café avec mun ñu wax café avec te duñu wax Milkzo

waaw mais mais mais mais moom laa la wax quoi xam nga lu nar a dem rek. xam nga ku mel ni Boubacar. Mhm. bu bokkee ci benn affaire déjà yàlla dafa am nu ko may ko mhm. ah ku mel ni Cheikh Yérim Seck ñëw. ñoom ñaar ñu bokk produit. Mhm. est-ce que yaa ngi gis. day joxe ba pare def seen xeetu casting bi ñu def ba am ay Thierno Diallo ay Milkzo donc loolu. loolu ben la won ci Sénégal si mhm. un café avec Pape moo fi démarré affaire yi quoi mhm. et tu vois donc mbirou suñu borom la rek et puis c'est c'est une famille hein, parce que Boubacar Kati voilà Lisa bu ñuy tourner dal moy lolu quoi. c'est famille la famille la quoi voilà voilà c'est mais mais li ñu gëna li ñu gëna li ñu gëna jaaxal man en fait man daf ma jaaxal moy mhm. relation bi nga am ak dafa don li nga xamni euh, en fait depuis l'enfance là wala da nga ñëw rek bokk comme ça dafa graw quoi manam yéen sen ki bi déggoo bi dafa doy war wa wa mais motax tax la xam nga mom itam doful ah doful ah ndaanaan la waaw ndaanaan la xam nga wala xam na nu mu ciy génnee quoi mais mom biñ ko waxé pour mu tourner moom nekkul woon ci ay affaire de cinéma donc biñ ko waxé pour mu tourner mom mo def casting moom xam na kan la mën a joué moo tax man la moom moom moo jàng. ayi ah, kon kon kon moom moo dem ko quoi moo loxo ma loxo <laughs> ni ma kaay léegi milk zoo ma ni ko luy milk zoo. mu ñu mënoo ci ah, film ah, bi moom moo la jox tur bi waaw waaw luy Milk Zo mu ñu mënoo ci film bi Milk Zo nga tudd ma ni waa mais yow pour lan man ma tudd Moussa yow nga tudd Boubacar man na bàyyi ma sama Moussa <laughs> mu ñu mënoo téyel Milk Zo ma ni ko ah ma ni ko baax na Milk Zo <laughs> nga daal nga si Milk bi waaw daal tamit mu doon li nga ne dafa dafa dafa cartonné euh, a son homme mhm. xam nga ndaanaan la quoi da milk milk oh, milk. bon bon succès maman. sincèrement il y a quelque chose qui a changé quoi mais pas pas pas tu manques, quoi. Eh, peut-être en mon fort intérieur am na ci ay changements quoi. mais mais mais à part ça hein, rien ne change hein, rien ne change. mais tu am na film bi en fait. mais bien sûr moom l'a lay wax ni am na fu ma yóbbu man si sama bop si sama yëg-yëg si sama dund am na fenn fu élever élevé aussi. parce mm-hmm. que ça m'a permis de connaître beaucoup de monde beaucoup de choses. Mm-hmm. xam nga xam popularité xam nga popularité ni muy demee ak lan lay def ci nit. yooyu yëpp ça m'a permis grâce à un café avec parce que j'étais pas connu si je suis connu c'est grâce à un café avec donc euh, lolu yep amna ko ci ah fa tabarfakala macha allah ay découverte ok donc tay euh, bon à part euh, li nga xamni moy café avec bi comme ni ma ko waxee léegi parce que tay bu la gaay xamé tay mom la est-ce que aussi tamit daan nga jouer ay films avant wala après aussi tamit ba nga jógee ci li am nga tamit yenn projet nga xam nga ko tek pour walum téléfilm ak yoy quoi. waaw bon légui parce que euh, ma xol un café avec légui un café avec man après dafa am ben pause bu amone j'en ai profité pour dem jangi un peu les métiers du cinéma. ok and ah, da nga demaat gëstuwaat. voilà dafa am ben pause man bo xolé ben moment tok na ay 3 mois yo xamni apparaître mo wat ci mhm. un café. légui ça m'a permis d'aller m'investir dans une école monsieur Boy il y a un Saint-Louisien. Mhm. xam nga pratiquement carrière yëpp en Europe la ko C'est un mhm. un cinéaste. Mhm. nest ce pas et écrivain aussi monsieur Boy Abdel Aziz Boy yal a un yàlla yërëm. Elle am yi dañuy ñëw institut chaque année peut être euh, sous peu de temps si ay mois de août C'est la deuxième année anniversaire de sa bi quoi. nest ce pas yal na ko donc on a madame Fa je me suis un peu enrichi nest ce pas a euh, une année et demie je me suis un peu enrichi après ma delluwaat école bi bon loolu voilà un café avec moo tax mon double instinct instinct boobu ci man quoi mm-hmm. ba may dund cinéma bi léegi quoi. mais am un projet yoo prochainement cinéma en fait. bon pendant le projet bi moom y a sama Ben boy quoi ñu ñoo dëkkandoo hein à la cité des enseignants. Mm-hmm. boy bi dafa bindoon benn scénario après ñu bind ko moom mooy court métrage n'est-ce pas mais léegi ci biir court métrage boobu ñu dé ñu déposé ko ci concours moom le premier prix quoi trophée ou ambassade Espagne. Mm-hmm. dans le cinéma Hein? Mm-hmm. waaw léegi je euh, mujj gi film boobu xaar yàlla moom moo jël premier prix bi. ok waaw mon film bu film bu am solo la. voilà c'est plutôt du cinéma. Mm-hmm. donc euh, à part un café avec Lola def bon sinon am na ñenn ñu sollicité di ma wax pour moi, nous tourner ñu tourner ay affaire bon mais mujjul tout, n'est-ce pas ay projet ñeneen quoi je veux dire. Mhm. bon mais me concernant nak man sincèrement. Mhm. am naa mon projet manque ci kawam quoi. Mhm. j'ai mon projet dans le cinéma. Mon ko ci wax dara quoi projet bobu non waaw waaw koy togg mu ñor quoi La waaw. wala gars yi mën nañ gars yi nañ ko xam pour xam li li milk di wadjal extra affaire gars yi mën xam. mën la xaar parce gars yi na mën la de milk. waaw mais mais mais c'est c'est c'est c'est ça quoi parce que xam nga buma ñëwé ñëwee un café avec. ba pare xam nga après mon suite quoi. xam nga loolu mooy yow demulo quoi. Mm-hmm. est-ce que tu vois sincèrement man sincèrement euh, virus bi dugg na ba pare mm-hmm. quoi le virus du cinéma n'est-ce pas dugg na ma ba pare quoi. mais quand avec mon dafa euh, pause wala nous fa demee parce que gars yi pare gistuñ ko te gars yi ba ngeen xam fu mu toll boobu ok wa mais xam nga lolu comme liguey bu nek hein ah, ah, am nañ fi ay soucis hein am nañ fi ay problèmes hein té nit moom day dund ak ay problèmes. Mm-hmm. n'est-ce pas voilà donc fi mu ci toll ñu ngi koy lijjanti ñu ngi koy lijjanti. yéen ci daal waaw ñu ngi koy lijjanti te am nañ yaakaar ni que nit ñaa ngi koy xaar te dina ñëw. mais commencé gu leen def dara pour l'instant nii quoi. non nii am nañu loo xam ne bu ñu woon prix dañ koy won dañ koy won jaam yi ñu seetaan ko. non man li ma bëgg xam mooy ndax instant bi yéen a ngi si tournage wala. non dama dañ ko mën nag instant yi nii non instant yi nii mais am nañu lu bëri lu ñu denc am nañu lu bëri lu nekk suñu kanam équipe bi. même équipe bi. lu bees wala dañuy continuer man de maa sama gars yi. su hmm. Dakar ni, dama fay jaar ma leen di siyaar. bu ma ñoo naan ma waay yow taxawal ndi gi ñëw te man liñ ma wax man dama koo gëm. waaw waaw <laughs> ok quoi dara jaru fi ti, je pense que allah un produit boo xam warul xëy rek seey noonu quoi comme ça. ça devenir incompréhensible. à mon avis, hein. mhm. et je pense qu'aux avis des autres, oh, ça va devenir film Bob daal di dem. Ah. milk bi daan gis bu nekkoon Dakar di tourné foofu noonu tey xëy gis ko mu nekk ndar gars yi dañu bëgg xam milk ndar la dëgg la Dakar mais li ma gën a bëgg xam mooy que dafa ñëw ndar pour jéem a imposer euh, li nga xam ne moo di wàllum cinéma bi dox Saint-Louis wala soit dafa dafa dafa am ay parents Saint-Louis parce que Dakar la nga daan gis xëy un bon gis que Saint-Louis mu daal ñëw xam nga gars yi jomi nag mais milk laa gis léegi fii mu romb non du moom sa présence Saint-Louis voilà les man su présent présence Saint-Louis moom mooy man Saint-Louis laa juddoo fi n'est-ce pas mais. à Saint-Louis hein? voilà fi laa juddoo euh, bon mais su mon cycle primaire yëpp pratiquement damay dem ma def ko Dakar suite à cela ma toogaat fa ba moment yii ma ñibbisiwaat mais je venais par intervalle. Ah, ma doon ñëw def fi un an daal di et tout ça wala ma ñëw def week-end daal di bon mais maintenant itam man bu ma ñëwee fii. bon, peut-être nit ñi xamuñu ah mais voilà sama kër laa nekk quoi. Eh, <laughs> kon dantar nga maa ngi sama terroir. voilà maa ngi si sama gox maa ngi fi ma fi ma fi ma bokk quoi. Mhm. donc c' est ça ah tout naturellement c' est ça quoi maa ngi maa ngi fi bon fii nag mun ma fi ñëw itam rek daal di toog nii ah. donc mun ma fi ñëw rek. donc à part à part à part à part wàllum téléfilm bi est ce que tey Milkzo am li nga xam ci yëngu. waaw bon. Ni ni ni, mangi def ben émission ci radio Ndar Ndar FM. Ndar FM wa mangi animé animé pour la vitrine culturelle chaque dimanche euh, de 19h30 jusqu'à 21h n'est-ce pas sur la 100.1 Ndar FM donc mangi def lolu waaw té lolu itam bu mon koy def cinéma bi je pense que am ci hmm. musique bi am ci tout ce qui se passe culturellement à Saint-Louis am na wàll ci liggéey yi nga xam ni man moom laa namm liggéey foofu noonu daal. ok donc yan conseil ngay jox ñi nga xam ne ñooy tey artistes yi nga xam ne nekk ci yoon ndax bu la gisee nii Milk Milk Milk Milk nu mu mel ci série bi noonu la mel en naturel comme ça Baye Fall. Mm-hmm. mooy loolu est-ce que tey jotul tamit ñi nga xam dañuy faral di génn am benn série deux série jaay seen bopp teg ay star lañu tey ban conseil nga leen di jox tey. non mais mais mais mais mais mais Star moom kenn du ko jaay ah. man je pense que. kenn du ko jaay quoi da ngay bàyyi parce que nit ñi dañuy am star. Mhm. te kenn ku ci nekk am nga sa star. Mhm, mhm. man je pense que pour ñi nga xam ne dañu nekk ci milieu yi nga xam ni showbiz beeg yu demee noonu mais baal gars yi jox la star bi rek nga nekk star bi. nga wàcc quoi. waaw waaw mooy loolu rek. bañ a yëg mel na ñoom Noba ak yow rek teg ko quoi bul ñëw bul ñëw. ak <laughs> ñoom Gaas ñoom <laughs> Cheikh. <laughs> yi dañuy yëg de. bul ñëw teg ko quoi. Eh, mais léegi. Euh, uh-huh. yi anamu. bon raisin yi man dama mujj obligé wuti tool parce que ñi may ñaan raisin dañoo bëri dama jënd ba tas di maye léegi nag wut naa benn tool gars yi ñu ngi arrosé. mais milk yow nga bëgg raisin noonu naturellement. waaw mais raisin yaa ngi nii di ma laajte raisin. non dafa ma jeexal parce que milk da nga gis affaire yi bàyyi moom bu gars yi di kii mi ngi si raisin bi dagg na daal di. waaw mais mais yaa ngi nii di ma laajte raisin mais xam nga rek neex daal moo neex. mais am na ci gaale bi fii nii ah. après daañu ci mën am raisin bi amul benn problème. ah gars yi daañu li ma denc sama kaaw moo fi des de li ma kaaw. <laughs> donc gars yi ñu ngi may signalé ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma taa bi nii. waaw ndeysaan instant bi jot na. xam nga uh-huh. donc euh, émission la bi nga xam ni. waaw waaw surtout ci émission bi. ku nekk ku naa ci wax tuuti ah. ci émission bi nga ni émission bi ma tasal ma ko. penc mi man maa ci maa ci njëkk dal nii yaa ci njëkk moo tax mu bëggoon rek dañuy mi ah, penc fii nga toog nii. Uh-huh. maanaam ñëpp a fiy toog. waaw politiciens yeeg. estaar yeeg xam nga képp koo xam ni jàpp nga ni yow war nga mën toog fii rek fii fii sa bërëb la quoi maanaam ñëpp si war toog xale yeeg mag ñeeg ak foo mënti yëngu maçon yi menuisier yëpp da ngeen toog ñuy waxtaan kaf ree fekk la sa diwaan bége quoi waaw ah, ah. loolu la émission bi tudd quoi penc bi concept bi loolu la waaw tey nag yow yaay ki nga xam ne yow leen ko si yow leen ko njëkkee ah, donc mbégte la

Si le euh, ça touche à la culture ici à Saint-Louis les jeunes hein, il faut vous investir investissez-vous beaucoup hein. voilà Tengeni, mhm. investissez-vous dans la culture la culture c'est le développement la culture c'est le développement encore Tendar, c'est une ville culturelle Kale bu ñu liggéeyee rek ñàkk jëriñ rek eh, waaw waaw mais loolu la man moom maa ngi woo parfois ñi nga xam ne dañu war a sponsoriser yi parce que kii euh, émission bi maa ci quoi am na ñi nga xam ne bëggoon nañ xam naa ah, sama xol seet na a lool man nii na gars jël si raisin yi jeex na tàkk amul benn euh, euh, ah. nga xam ne yéen doon seetaan tey ma teewla sama grand milk di gërëm sama gars yi nekkoon ci ginnaaw ah gaz maa ngi char gaz El Salvador ah, Nobisto Boz Ousseynou Ndiaye moom nee na ko gars yi wax Boz te moom loolu tudd ay Nobisto la tudd bañ ko wax loolu xam nga ak tamit euh, Cheikh waaw Cheikh Cheikh <laughs> ok <laughs> Cheikh Pro <laughs> ok jaa ngeen jëf équipe Sen TV yëpp ñu ngi leen di jaajëfal jaajëf bi gëpp merci